chance Siteu euh, mooy euh, mu mu mu attaqué maanaam comme que moom mooy xale mooy wut parce que comme que Lac de Guiers daf ko may chance parce que boo xoolee Lac de Guiers daf ko may chance mm. parce que Lac de Guiers ñu mu bëreel Siteu bëriwul ak ñoom te Lac de Guiers boo dee xool parce que deux defar la am benn bi par décision de la l'arbitre benn bi Amar Sène moo ko ko daan donc euh, daan Lac de Guiers moo koy yóbbu ci cour des grands mm. donc moom mooy cherché waaw moom mooy cherché ji Lac de nag nekk na mbër moo xam ne kenn mënu ko comprendre parce que mbër la moo xam ne euh, mën na toog di xaar comme mën na ñëw ñëwam nag toujours mosul échec ndax mbër la boo xam ne day calculer day calculer daa dégg doyen Ibrahima Ndiaye di wax naan li tax Lac de Guiers mën a bëri daa mën a song mën a rasu ñaar yooyu la boo koy song mën na rasu Siteu nag pour mu tëb songul ak de guerre kooku risque la na xeex ak moom parce que euh, jébu ko déplacé maanaam bu arbitre bi sifflé na na xeex ak moom def ay déplacement latéral mais bu mu ko fixé parce que Lac de dafa mën a xeex te ku Lac de mën na yàq làmbam donc bu dóoree nay déplacé wu di bouger di mobile di ko déplacé ndax un lour boo xam ne dañ koy déplacé toujours il devient un léger ci moment yooyu nga mën a profité ci faay yooyu pour mën a mën a mën a mën a exécuter mais sinon Lac de Guiers mbër la moo xam ne euh, je sais très bien que àddina jara jaralu ko mu daanu. ci kaatu bëre ku gën a ës. man pour man Lac de en 30 secondes rek. Lac de a gën a ës parce que xam lu tax mu gën a ës Lac de Guiers jaral noo ko bañ a daanu.